Euh, ñu jagleel ko euh, xale yi nga xamante ni vraiment ñoo nekk hôpital Dantec euh, suñu ay ndaw vraiment demoon fa def suivi de cas demoon fa jox leen koppar boobu nga xamante ni vraiment dina mën a servir xale yi ak parents yi seen xel dal ne serait-ce qu'un petit moment parce que voilà bëri na bëriwul mais au moins euh, quand même on a posé quand même cet acte fort comme quoi que la 2STV nekkul seulement télévision buy bëggalaate waaye mm. dafa vraiment dugal loxoom ci dans le social kon nañ seetaan élément bi tey ñu ngi fii oncopédiatrie bu hôpital Aristide Le Dantec mooy fi ñuy fajee xale yi nga xam ne dañu am cancer euh, dañ fi jaaroon nag ci octobre rose bi comme niñ ko daan fas euh, daan defee at mu nekk rek indi leen euh, ay ay ndékkeek yooyu ci biir émission vous et nag ah ñu do jotoon ci def benn reportage fii tey nag ci biir reportage boobu nag Euh, PDG wu 2STV mayoon xale yi accompagne malaat yi xale yi nga xam ne dañu feebar ci cancer mu mayeloon leen 5 euh, millions tey nag moom moo ñu indi fii ci euh, service bi pour ñu jox ay enveloppe xale yi nga xam ne parents yi nga xam ne ak xale yi nga xam ne dañu feebar ñu indil leen seeni enveloppe pour jox leen ko. ñu ngi sant euh, 2STV di sant euh, PDG bi ak soxnaam di sant mbooloo 2STV yëpp daal vraiment ci geste bi gest bu noble la euh, xale yi am nañ ay soxla yu bëri je pense que enveloppe yi directement au familles soutien bu mag la. di yëkkati suñuy kàddu ci turu directeur hôpital bi Babacar Thiandoum. moom moo bëggoon a teewal boppam fii pour recevoir la délégation de la 2S pour euh, vraiment magnifier action bi et action bi aussi euh, lu ñuy jël la à sa juste parce que xale bi bu am cancer képp ku ñëw di la jàppale ci paj mi je que yow la ko defal. léegi nag ñi ngi procédé remise enveloppe yi nga xam ni moom la ñu jagleel malade yi ak seen accompagnant. pas les moyens et qui ont besoin de beaucoup d'aide. Et leurs familles n'ont pas beaucoup d'argent. Et ça, c'est très bien fait. Les associations, et il y a beaucoup de médicaments qui coûtent vraiment très cher. Merci beaucoup.